bi yal na ko suñu borom yi mottali na ko jàmmalal ak sutura di nuyu Adama Diop mi nga xam ne nag tudd meer te tuddoo ko yaakaar naa faaw meer da lay mere ndax taxawaayam ci digganteem ak meer nga xamante ni bari naa am na yu bari yoo xamante ni suñ demee ba mun ñëw taxaw ci wetam lu bari bis mu nekk maanaam taxawaayu Adama Diop moo remplacé suñu taxawaay ci yu baree bari kon Adama ñu ngi lay sant di la gërëm di nuyu tamit wax di yàlla Pambay moom daanaka duñ ko sant dañ koy ñaanal yàlla rek ndax digganteem ak meer yaakaar naa ne ku nekk xam na ko di nuyu nag ki nga xamante ni tey mooy alaji Mor Biram Diop mi diggante ak maire yaakaar naa ni di ko pambub di rek samedi dimanche la ci ay taxawaayam ci dëkk bi ak ay xalaatam yu rafet moo daan yàlla gën laa taxaw bu baax a baax di nuyu tamit presse bi nga xam ne ñoo taxaw fii di génn li nga xamante ni nekkuñu tere lañ ko génne bis bu maire xewlee rek lu mel noo xamante ni ni day dimbali ko ci lu ñu bari war cee mën a teg seen bët te te di ko lu lool muy presse bi nga xamante ni ki ko jiite mooy Alpha Sarr ak ko àndal ñëpp ñu ngi sant leen gërëm baax lii nag Mor wax ji du bis la boo xamante ni bisu yon buntu jaar bisu yonte yàlla Muhammad la bisu yonte yàlla Muhammad nag yaakaar naa ni lépp lu ci waaye defu lu nekk yaakaar naa ni séntuwu ci payu kenn payu yàlla nga ci séntu di ñaanal nag suñu baay bu baax ba baay Cheikh Tidiane Seck na nga ñu daaw fii lañ taxawoon am ay teraanga yu bari yoo xam ne mais dafa yëkkati di ko teg ci loxoom ñu koy ñaanal yàlla Seck muuri teraangam yal na gën a fekk fa mu ko nekk yàlla bu ko ca jiitu yàlla bu ko ca ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam maire nag wax dëgg yàlla lii euh, nekkul ni gulet ci nan su la neexoon nga def ko te kenn du ko yëg ndax def gi ngir def gi def gi da nga ko def ngir yàlla loo xam nag ba nga nekkagul maire nga ko commencé def di ko def di ko def ba tey jii nga nekk am maire yaakaar naa ni day yaatu waaye yaakaar naa ni du wàññiku yaakaar naa ni ba nga commencé ak léegi yaakaar naa ni gisoo ci tànki ginnaaw de tànki kanam rek nga ci gis yàlla nag ku koy liggéeyal nag kenn du la fay moom moo lay fayal boppam yàlla mi nga ne moom ngay def nag moo tax ngay def nag te gudd yonent ah, man de am naa ci ay tegtal yu leer nañ yoo xamante ni lépp lu ci waaye daan def ci lu baax say boobu boo ko mën a yokk nga yokk ndax jëmm la joo xamante ne nii yàlla ci boobu moo ko wàccee tegal ñu ko suñu kanam mu nekk suñu giddi boo xamante ne nii képp koo xam ne yaa ngi ko jël teg jël sa xar kanam sa bët gi di ko teg ci yonent bi sallallahu alayhi loo bëgg ci ko am surtout guddeem gi kon su yàlla dimbalee nag nga am xalaatu waxtu wu guddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwee lépp loo xam ne jox nañ la ko wala nga ñaqal ko sa bopp da nga jëlaat lépp delloo ko ci xeetu yàlla tam ci xeetu yàlla tam Muhammad bi faw yàlla fay na man daana la wax ne nag kuy def lu baax doo gestu mukk kuy def lu baax doo gestu yal na la yàlla gën a taxaw gën laa jàppale li nga def rëy mu rëy ci nit ñi nag noonu la rëy ci yàlla te rëy yàlla donc daanaka doy na sëkk kon yàlla mi mën a fay nag yal na la yàlla kontaan nañ ci bu baax a baax a baax ndax dipp yàlla gisaguñ ci loo xamante ni day tax ñu ne ah taalare mu mën a soñoon tey démb du ma ànd ak moom lépp loo xam yaa ngi koy def mu nekk loo xamante ni war nañ cee gis suñu bopp rek yaa ngi cee woo ci biir di wét ak ñun ci zaahir di wét ñun ci baatin lii nag lii rek doy na doy lii rek daanaka doy na ci tegtal kon ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla gën laa taxaw bépp nag boo jënd ren daal bu déwénee wenn wu ci nekk yan yan na ko wecc ak gétt yan na ko yàlla wecc ak gétt ci zaahir ak ci baatin fii la ñu yemale kàddu yi wax dëgg yàlla di ko rafetlu lool li ñuy wax nag dafa nekk loo xam nag nekkuñu dañoo taxaw fii rek presse bi di ñu teg ay micro ñuy wax dafa nekk loo xam ne lu ñu gëm suñu xol la bu ñu wéetee ak yow noonu lañ la koy waxee suñu wéetuli ko suñu diggante suñu borom tamit noonu lañ ko gëmee kon ñu ngi lay sant bu baax di sant ñi nga xamante ni ñëpp ñoom ñoom lañ bokkal commune bi yëpp nag ñi ngi bokkal commune bi yëpp nag ak ñi nga xam ni ñoom lañ bokkal conseil bi yëpp nañ jàpp ni ni ma fa taxawee ni aadama taxaw fi ni nañ jàpp ni conseil municipal bépp noonu ñoom lañu fi taxawal te ku ne xam nekk surtout jigéen ñi kenn ku ci nekk yaa nga am loo xam ne waaye nañ jàpp ni ñun ñëpp daal ñu ngi sant bu baax di gërëm ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu eh, ñoo ngi nuyu bu baax di ziare Baye Abdourahim Seck di ko ñaanal yàlla yal na yàlla guddal fanam te wéral ay cëram Eh, di ñaanal bu baax baay Cheikh yal na ko yàlla yokk ay teraanga ci fële mu tëdd eh, di nuyu bu baax monsieur le maire di santaat yàlla bu baax aussi ci li nga xamante ni ñoo ko àndoon daaw ren ñu àndaat ko mais di nuyu Serigne Mamor Seck mi nga xamante ni sakk la ci suñu biir nga xam ni ci conseil bee ñu nekk rek macha allah mi ngi fay def liggéey bu am solo nga xam ni bu ñu toll ci yenn point yi bu àddoo rek macha allah lépp seddu yi di nuyu bu baax euh, euh, Baye Mor Birame dëgg yàlla àndam ak monsieur le maire àndam ak ñi nga xamante ni ñoo ànd ak monsieur le mu doon loo xamante ni lu am solo la euh, di nuyu Pambay bu baax Baye Mor wax na ko léegi nee bu monsieur le maire réeroon tey moom lañ koy laaj macha allah moom it ci côté monsieur le maire di def liggéey bu am solo waaye dañuy dellu di santaat yàlla bu baax ndax bu fekkee yàlla daf la may kilifa mu doon kilifa goo xamante ni. macha allah lépp loo xamante ni waxtaanee na ko yow ak yow loo ko ci wax dina wax ba wax loo xamante ni lu kawe sa njortal parce que loolu mooy sagal sa àndandoo parce que tey lépp loo xamante ni yëkkati nañ ko ni ko monsieur le maire defal lii monsieur le maire dina def ba def lu ëpp ci loolu mu doon loo xamante ni lu am solo la lu ñuy sagal la ndax it dañu nekk ci digganteem ak population bi mu am njàmbat yu bëri yoo xamante ni population bi dañ koy njàmbat mais su egsee ci ñun suñ ko ko waxee monsieur le maire dina ci taxaw taxawaay yoo xamante ni macha allah ñun suñu bopp dañuy bég ci loolu kon loolu nag dañ ko ciy sant bu baax di santaat yàlla mais di ko ñaanal yàlla aussi li nga xamante ni mi ngi koy def boobu ba léegi delluwu ci ginnaaw benn yoon chaque fois day gën a avancé ñoo ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko gën a mën yàlla na ko yàlla jàppale ba nga xamante ni comme ni ko sëñ Maam Mor waxee lii ay gétti gétti lay doon ba nga xamante ni cene ba dina gën a yaatu ci biir ba ñu bëri mën cee gën a jot parce que nag wax dëgg yàlla euh, teraanga bii da doon loo xamante ni lu rëy la su fekkente ni bu gàmmu ñëwee guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam monsieur le maire ni guddi googu jaral na ma lu ne bis boobu jaral na ma lu ne lépp lu ma am dinaa ko ci def yamale ko ci pour bégal askan bi donc loolu aussi bu fekkente ni am na à chaque fois mu koy def te toujours muy gën a jëm kanam alors loolu dañ ko ciy sant dañ ko ciy gërëm bu baax di dellu encore une fois di ko ñaanal yàlla waaye aussi di gërëm bu baax njabootam parce que nag njabootam aussi am na nekkin noo xamante ne moom la ñu nekkee ñun tey am na neneen noo xamante ni bu ñu ko defoon ñun ñi sañ nañu dem toog suñu kër daal di koy bàyyi moom monsieur le maire mu dem waaye ñoom it fu ñu toll ñi ngi ñuy encouragé ñu ngi ñëw aussi di ñu gën a jox suñuy cër si sunu diggante ak monsieur le maire ak di gën a xel diggante bi kon ñoom it sant nañ leen gërëm nañ leen ku wax waaye Mor daal defe naa ni moom kàddu yi moom xol bee sedd ba nga xamante li ñu bëgg wax yëpp mënuñu ko wax jërëjëf Alhaji Adama Diop euh, di directeur cabinet bu monsieur le maire nu jox kàddu gi kii di monsieur le maire ki nga xam ne moom mooy Serigne Momar Talla Diagne euh, di góor gu mag dëkk fii ci Thiénaba Serigne Momar Talla Diagne di doomi baay Jibril Diagne rahmatullahi alayhi Serigne Talla Diagne nekk maire de la commune de Thiénaba Serigne Talla Diagne nekk au conseil collectivité teritorial euh, fii ci ba monsieur Talla Diagne Euh, dëggmal si nañu gàmmu Thiénaba 2020 yal na yàlla may nañu fekke ko déwén léegi trang bii nga xam ni yëkkati nga ko jëmale ko ñooñ ba rawatina gan ñi nga xam ne ñoo fas yéene gàmmu si ci biir ba at mu ne nga di ko def comme ni ko sa mbokk yi waxe yow lan nga ci gis tey mbokk yi kon. Ah, alaaj Mor Birame euh, Diop euh, ñu ngi lay jaajëfal euh, mhm. monsieur le maire de la commune xol bi sedd na. Mhm. mbégte moo waral lii lépp. Mhm. as gor nii rek lay mën mel wolof dafa léem ni ku ne lu mu nacca lu mu wul bu mu lu mu wul bu ma bu lu mu wul bu mu lu mu wul bu caa lu ñu ko ca bu ma ko moo ko lii mbiram la moo xam ni moo ko sasoo. at mu ne nag yàlla gën ko ko man loo waaye mu feggoog ñi nga xam ne ñoom la ko bokkal muy gor yi nga xam ne ñoo ko séq muy sëriñ Mamour Seck alaajaa Adama Diop ak sëñ Pambay sëñ Jaame loo xam ci lii tey jataay bi la euh, waaw dafa rafet cest à man li tax ma dugg euh, dama doon bàyyi nga doxal ndax euh, suñu doyen nga ci métier bi su ma xamoon ne sax déjà commencé nga te yaa ngi doxal damay continuer ci activité yi ma nekkoon ndax benn la monsieur le maire gest bi laay commenté Euh, lu tax nga jox ko micro euh, mu ni tekk mënul wax mooy xolam dem na foo xam ne sax ñun dañ koy imaginer rek waaye mënuñu ko xam moom moo ko mën a wax ndax damay wax ni euh, dafa am ñaari tànk yu ma mën a yu ma mën a jàngat mooy monsieur le maire gi te tey sax tey ku ko laaj moom dina la ko wax dina wax ni monsieur le maire gi du loolu moo ko intéressé tey mais tey li nga wax li nga ko tiim wax ko ko muy monsieur le maire euh, Talla Diagne mi nga xamee ni macha allah taalibe la ci kër gi euh, mooy borom kër gi bokk na ci kër gi tey yàlla dimbali ko mu am lu mu mën a yëkkati ñëw participer ko ci kër gi loolu moom moo ko àggale fi mu fi mu fi mu mu fi mu fi mu àgg te nag loolu mën naa àggale euh, ku nekk fi fi fi mu li mu def ndax contentement la dañuy wax ni nit bu defee fajee soxla wala mu def dara loola yàgg na ci xolam ay at mu dog ko génne kon xañ na euh, foofu la àgg ndax man lii yàgg naa jël reportage bi mhm. mais nag yi ma gis fii euh, mën naa wax ni mosuma koo gis mhm. daana am mais chaque année boo ñëwee da ngay gis ni mhm. euh, mu ngi yokk kon yàlla na gën a yokk gëm naa ni tey buñ ne am na yeneen kër yooyu seetaan am yeneen taalibe yu fay def di jiital ay coggal moom bu moyen àggee foofu dina def lu ëpp loolu wala dina def lu tolloo ak loolu man gëm naa ko ndax nit ku nekk da nga koy juger par rapport ak ni nga xamee noonu tamit ñi taxaw nii muy sëriñ Mamour Seck mu bàyyi taalaxaar euh, ñëpp xam nañ ko xam nañu nit ku baax la sëñ Mamour lu mu yor da koy joxe kon bu ñuy ñëwee fekk ci jataay boo xam ne dañ cey jël teraanga di ko jox di ko joxe kon loolu moom tamit duñ ne accam sëriñ Adama Diop ànd gi mu ànd ak monsieur le maire comme ni nga ko waxee mu nekk ànd bu rafet mu nekk nit ku yiw nit koo xam ne daanaka buy wax sax du siggi xool nit waaw donc loolu euh, ay constat la wax nga ko léegi nee na lu ñuy lu la jaaxal ci monsieur le maire boo gisee sëñ Pambay da nga ko koy wax te nag moom mu am ak mbokk goo xam ne mbokk gu wér la ci biir Thiénaba ñu xam ko euh, mbokk téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi seetaan El Hadj Mor Birame Euh, ñu ngi lay jaajëfal yow ndax damay wax ni boo yoree micro wala nga yore waxukaay goo xam ni ñëpp nga seetaan doo man lu dul rek di coppet bi bii ndong ci bii ci wàllu lu rafet pas coppet ci bii ci ndong ci bii euh, ci wàllu lu ñaaw waaye wàllu lu rafet te loolu ngay def kon euh, monsieur le maire faaw mu wax nag faw mu dëgër lu wax ndax tey bisu wax la dina wax waaw dañ koy dañ koy delloowaat ci moom bu ko defee mu daal di génne li mu bëgg a bu ko defee nit ñi dégg ko jëriñoo xam nga njàmmee monsieur le maire dafa dégg xadis bi yonent yàlla Muhammad wax man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yukrim dayfahu walaw kaana kaafiran mooy xadis bi mu ma daaneel woon ku gëm yàlla gëm bis penc soo amee sa gan na nga ko teral lii moo ko ci dugal macha allah lii nag teraangay gan ñi la kon euh, hadis boobu la dégg monsieur le maire kon doo def rek loolu bësante ak soxol janloog askan wi rek wax lii nga xam ni moom nga fas yéene ci jaam yi Baye Mor jërëjëf eh, ñu ngi sant yàlla bu baax julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu Baye Abdourahim Seck xalifa sénéralu Thiénaba eh, li tax sama xol fees mooy yéen ñi ma wër ku ci aman lii def ko tey beneen bi ci dolliku mooy eh, yàllaa ngi dogal bu ma sañan tey ku dëkk Thiénaba ku ne yeewal la nag waaye li tax sama xol jeex li tax xolam jeex dégg nga nee na su sañoon tey euh, képp ku xam ne rek dëkk nga cene ba euh, dina la jox nag euh, monsieur le maire bàyyeegunu ko ndax li muy wax yemul ci kii kon ñu bokk déglu rek sama xel da caa dem sama xol sori parce que Baye Ndiaga Mokhtar Seck dafa jàkkaarloo ak man ni ma bis ba nekkee xalifa général di nga xam ne daf naa sama xol loola sama xol sori ba tax su ma sama xol demee ci moom sama xol jeex du caaginug li ma def nii moo ma tax a jooy sama xol moo dem ci moom sama xol moo sore ci moom ak yéene bi ma am ci Thiénaba te amadu gu ba caa àgg ba tax na euh, àddina bi lépp looy def wala jamono bi dina am ñoo xam ne neen lañ koy tuddee waaye bu bu fekkee ne woon xam nañ la ci sama xol dinañ xam ne tey képp ku dëkk Thiénaba bu ma sañoon yeewal law nag waaye en tout cas daal li may sàkku daal mooy kilifa yi ñaanal ma bali seex bee ca doon def Touba man ma def ko fii cere ba te insa bi loolu sama xel dem parce que fi mu ne nay du yii dong la am na ci yoo xam ne mënee su leen a jiital xajuñ ci oto bu ndaw bi fii nu toll fajar la leen oto bi biy jëli insa bi bu suba bu nuy séddale nag yi bu ngeen dikkee dinañ fekk mu ñëw yooyu kàddu rek laa ci doon sànni di sant ñëpp gërëm ñëpp. Euh, jërëjëf monsieur le maire yaakaar naa ne itam nag yi nga xam ne moom nga indi nii am na ñoo xam ne sax ñoom jot nañ seen nag ku mel ni waa Ngomeen Euh, seen ngo seen nag dem na te xam naa moom itam du mën a ñëw suba ndax libéré ngeen ko ba pare ndax foofu nga ko jënde loolu tam euh, jot nañ ko muy xabaar bu euh, bu yéeme muy njabootu maam Ahmadou Bamba Niang gi nga xam ni waa Ngomeen ñoo jëloon sars di ko defal maam Bamba nga teggi leen ko kon kooku tam ñu ngi la ciy jër a jëfal mel na ni kon ceene ba gépp nga yeewal nag sa yéene bi yàlla àggaleen na ko wax nañu itam nag yi nga yoox ni yemoo ci lan nga ciy dolliwaat. li ma ciy dolliwaat rek mooy. nay li muy bari bari ñaari nag rek moo ciy génnaat parce que ñi nga xam danoo nekk ci commune bi daa gàmmoo Tiwaawan dama leen daa jëndal ay nag waaye defe naa tey laa ko mas a wax ren nag yàlla dogal na ñoom gàmmuwunu na yëpp cere ndawal la koy yemale ku ma war a jox nag dinaa la jox nag ku ma mënta jox nag dinaa la jox ndawal ku ma mënta jox ndawal dinaa la jox xaalis loolu laa fasal yéene. ak ceeb. waa ceeb bi moom bu ngeen paree ngeen dem jël ko incha allah bi bu subaa. damay tëj buntu kër bi jëm ci sama kër génne ko ci mbedd mi na ma defan daaw laay def lépp dinaa ko joxe. maanaam koomul ceeb dinga am yàpp mbaa xaalis. incha rabbi kon jërëjëf mbokk yi mu doon seen émission bi nga xam ne at mu nekk ñu amal ko fii ci kër El Hadji Talla euh, ci bu teraanga bi dikkee ba lañ koy libéré euh, xaritam yi nga xam ne ñoom la ko séqal yëpp di gor kenn ku nekk euh, amoon ci wax ju neex ju rafet joo ko digaloon mu ànd kook ñoom te itam lii doon nu fas yéene ko continuer at yu nekk ay ati ati ati at gis ngeen xolam jeex na euh, xol bi seet na guy euh, ku wax ba sarangoñ tuuru dese woo dara mu doon Alpha Sarr Talla Diagne ak ñi nga xam ne ñoom lañ ko seeqal yëpp El Hadj Mar Diop ak ñëpp ñi nga xam ne teew si woon nañu asalaamaaleykum wa rahmatullahi barakaatu. Euh, jërëjëf El Hadj Mor Biram Diop macha allah ci waxtaan wu am solo boobu plateau boobu mu seq ak kilifa yi jiite ko monsieur le maire Talla Diagne. ànd ko ak euh, sëriñ Mamour Seck macha allah euh, ànd ko ak sëriñ Adama Diop. Euh, ànd ko ak Serigne euh, Pape mbay euh, waaye ànd ko ak El Hadj Mor Birame mi nga xamee ni suñu doyen la ci métier bi taxawaay rafet na kon ni ko monsieur le maire waxee rek dugg nañ ci magasin bi ngeen seen ko mu taxaw ci wetu ceeb bi nga xamee ni macha allah moom la wax ni suba incha allah dina génne lépp ci mbedd mi séddale ko comme ni mu ko daan defee nit nag bu fekkee événement jot na mu yëkkati ndawal jox la. Euh, macha allah gis ngeen ko muy nag yu takku yëkkati li nga xam tamit moom mooy euh, ceeb jox la euh, kooku nag macha allah bëgg na sa gàmmu neex te yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ci barke Sidina Mouhamed sa alayhi wasallam xam naa nañ jegewal monsieur le mu sànni ñaari kàddu rek ci yëfi njaween yi ñu jàkkaar lool monsieur le maire yaakaar naa ni ñu ngi taxaw njaween yaa ngi jàkkaarloo ak yow ceeb bi nga doon wax li ñu naan tungu ni du teew ñuy nataal mu ngi nii teew te ci askan wi la jëm ñaari kàddu rek jëmale ko ci ceeb bi ak naka lañ koy joxee waaw jërëjëf euh, sëñ Ndiame ñu ngi santaat yàlla bu baax di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme ni ma ko waxoon léegi di sant euh, Baye Abdourahim Seck di ko ñaanal yàlla yal na yàlla. la commencé ca Mam Momar Talla ba ci Baye Seex mi génn àdduna barki démb yal na ko yàlla euh, yóbbu àjjana te dëkkal ko fa ku fi masa am ndam ku ne yal na la ëpp ndam ndax képp ku am njaboot. da ngay ñaan yàlla sa njaboot féetal a ginnaaw waaye dangay ñaan yàlla sa njaboot man loo xam sax yow mënoo ko moom nag loolu la ko ay kilifaam doon ñaanal kon yal na yàlla defal ko ko e, di sant yàlla bu baax di sant président Macky Sall nag ndax lii ngeen gis nii tey e, moo ma ko yónnee wan daaw bi nu koy séddale yéen a ngi fi ma tëj bunt bi jëm sama kër ubbi bunt bi ci mbedd mi bu dul woon ak taw bi ak ñàkk ko mën a e, garde ci mbedd mi laa koy wàcc ñaanuma yàlla benn fepp ceeb dugg sama kër te bu neexee yàlla bu suba heure bii suba benn fepp ceeb di su ko fi fekk dinaa ko joxe ba mu jeex dina matal ñëpp nag mënuma koo wax waaye ku ci sa wërsëg nekk dinaa la jox fu mu yem nag ma xam ne fii la yem bu ëllëgee ma commencé waat fi ma yeman en tout cas daal maa ngi ñaan yàlla ñu fekke ko déwén eh, te yéen ñii nga xam ne yéen a fi teew kenn ku ci nekk lii nga xam ne moom laa am te di ko def yal na la yàlla may ko ëpp ba nga def lu ëpp loola parce que kenn ku nekk am na yéeneem Euh, nit dina toll foo xam ni man ku ma xam-xam ni euh, problème wax du sama problème euh, problème fit du sama problème mais sama xol nag dafa gaaw a fees yéene bi ma am ci gàmmu Thiénaba ak yéene bi ma am ci population Thiénaba jàpp naa ni yéene booba sama man-man àggagu fa foofu la sama xol sori ndax li ma li ma gën a bañ ci àddina mooy teral doomu aadama am ko ma romb teraluma ko parce que loolu mooy sama sama métit mais li ma gën a métit mooy gis ku ma war a teral te teralu ma la xam nga bu fekkee da nga am yéene boobu te la nga yéene mën a goo ko une sa xam sa xol sori waaye nag dañuy ñaan yàlla wolof yi nee na bu yoon jeexul waaxusul jeex ñu ngi ñaan daal lépp lu ñu yéene pour def ko ci guddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam def ko ci cana ba def ko ci kilifa yi yàlla may nu man-man booba ba nu man koo def Euh, monsieur le maire euh, occasion la ñu wax ak yow euh, par rapport ak gàmmu gi ndax gàmmu gi dafa dajeek phénomène bu doy waar muy pandémie Covid 19 tey message bu monsieur le maire Talla Diagne lan lay nekk jëmale ko ci askan wi. waaw xanaa message bi rek mooy li nga xam ni moom la docteur yi digal kilifa yi ba message boobu daj na àdduna si Baye Abdou mi nga xam mooy kilifa gi ku dem ca moom gis xam ni xar kanamam mooy sarto ak ndigal yi. maa ngi ñaan képp ku dëkk Thiénaba parce que nag dafa wax ni dama wax ni booy digle sangu da ngay sangu ñi ngi wax ni képp kuy ñëw Thiénaba na nga yor masque boo dikkee nanga nga raxasu na nga yor ay sel di ko raxasu di ko di ko laal mais nan fekk ñun ñu jëfandikoo loola ci la ñiy ñëw gën a xam ni ñun ñi nu fekk si respecté nañ leen doon def nii ma def nii sax jàkkaarloo gi ak yéen di wax ci presse bi yoruma maska yoon santaane wu ko boo duggee sa oto yow rek wala nga nekk sa biir nekk rek am nga droit bañ a takk mask même boo ànd sa sëfoor da war a takk masque euh, mbir mi nag day mbir moo xam ni euh, xaw na noo bett nii waaye euh, ñun respecté nañu li nga xam ne moom la kilifa yi santaane te insa rabbi moom la ñu fas yéene def bu ngeen xoolee seen ginnaaw lépp lu fiy paanu raxasu lépp lu fiy sal lépp fi lépp lu fiy ordre mu ngi ci ginnaaw te insa rabbi dama fas yéene génne ko li nga xam ne moo war a jëm kër Njaga Saar Euh, mu jëm ci ay masques jëm ci ay sel jëm ci ay ay ordre de sebal mi ngi nii tege euh, Baye Abdou jox na ma ko ba insaara bi bu subaa dinaa ko yóbbu ngomeen ba waa kër Njaga Saar di dikkee fekk ko fa Euh, kon dafa mel ni euh, message ba ma waxoon ci jamonoy Covid 19 bi ñu ci tollee ci digg bi euh, mooy raxasuloo nañ nit ñi waaye fan nañu dugal seen loxo lool moom monsieur le maire dalu ko ndax joxe na raxasu waaye joxe na ndawal joxe na ceeb joxe na leneen loolu tamit lan ngay woote ñeneen ñi nga xamee ne aussi xañ na yoruñu ay ndomban tànk monsieur le maire mais yor nañ yeneen ndomban tànk wala nitu dëkk bi lañ message bi lan lay nekk. waaw message bi mooy li ñu def nii mën naa am sax ñu tudde ko neneen. waaye yàlla xam ne puukaru mbaa wanewu taxul ñu def ko waaye dañu wax ni soo manee lu baax te di ko def bul ko nëbb ndax kamu war te defu ko dafa am loo xam ni boo ko xësee téye yàlla dogal nga man ko bokk ko ak say bokk sostuma guddi gii nga xam ni guddi gi bi la ma jàpp ni daal képp koo xam ne am nga dara loo mën a génne bokk ko ak say bokk génne ko bokk ak say bokk bu jeexee nag ñu xam ne dafa jeex soo ko amul ñu xam ne amoo ko waaye kenn ku am loo xam ne des na reer boo xam ne ñetti fan ñeenti fan war nga koo mën a joxe war nga mën a gestu ñi sa ginnaaw ñu amul reerub suba. monsieur nag yi ñaata nag la. waa nag yi mi ngi nekkan fukki nag ak juróom ak bi nga xam ni moom laay wax ni xajul ci oto maa ngi ko jënde huit cent mille moom incha bi suba dina ñëw nag bii ma lay wax nii ni moom laay jox Baye Abdou samedi maag Pambay ñoo bokk jënd ko. maa ngi ko jënde téeméeri junni ak fukk yeneen yi ci des nag euh, mënuma ko xayma parce que man xam nga ab jula la damay dem daara jolof benn baat lay doxe benn baat boo ko déggee da ngay dikkee weññi fukki nag wala ñaar fukki nag ni baat bi ñaata la ñuy la 5 millions mbaa 6 millions kere bi ma jëkkee dem daara jolof 4 million laa génne jënd ko ay nag bi ma delluwaatee ma yëkkatiwaat 2 million jënd ko ay nag defe naa ne samedi bii passé am naa fa borob cinquante mille kon 6 millions jënd naa ko ci ay nag yor naa borob 350 mille te incha allah bi bokkul ak nag bi ma jënd kayre nga xam ne 800 mille laa ko jënde loolu nag bu ma sañan tey damay génn vingt millions jënd ko lépp ay nag bu ëllëgee bu ma amee 100 millions jënd koy nag incha allah bi te moom laa fasal yéene su ma ko amee rek dinaa ko def. monsieur le euh, euh, bu baax di sant ñi ma àndal. Eh, ki ci jiitu di sëriñ Mame Mor Seck ak aadama eh, Diop ak ku mel ni Gora Diagne eh, Pambay nag moom comme ni mu ko waxee su ma réeran tey il foo ñu laaj ko ko waaye moom itam bu réeran il faut ñu laaj ma moom sama diggante ak moom sori na lool aussi di sant sama njaboot parce que nag jàpp nañ ci ndax am na loo xam ne kenn mënu ko te léeg-léeg équipe bi ma dar du nu am jot pour dem waaye ñoom ñooy ànd ak man lépp lu ma leen sant rek di leen def loola kon maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant conseil municipal commune Thiénaba yëpp waaye di sant population commune Thiénaba parce que su ma dee sant conseil municipal bu Thiénaba population Thiénaba moo tax parce que bu dul rek population bi doon am conseil municipal ba ma leen di sant kon population bi maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla daal lii nga xam ne moom lañu wóolu man lañu wóolu ba dénk ma ko yàlla bu ci dara yàqu nit ki nag euh, am na lu muy bëgg su ko mënul sañ naa ñaan suñu borom te suñu borom moom tëlewul dara kon yal nañ yàlla doole dimbali e, gàmmu gi nu jëm nag yàlla bu ci benn kaa dugg cene ba ni yàlla dimbalee ba mu am juróom weer ci ren ci tey te kenn amu ci loo xam ne benn kaa bu dëkk cene ba yal na yàlla dimbalee noonu ba bis boo xamee ne ni am na dàgg na nañu ajjuma ca ngoon ñu ne feebar bi jeex na Sénégal loolu la ñuy ñaan e, di santaat bu yàlla bu baax di sant e, président Macky Sall comme ni ma ko waxee di ko gërëm. Eh, di ko gën a tàllal loxo waaye di gën a nekk ci wetam xamal daal population Thiénaba amul góor amul jigéen amul mag amul ndaw ñëpp a ngi ci sunu ginnaaw di ko jàppale di ko déglu lépp lu mu bëgg rek incha allah bi den ci ànd ak moom kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. salaamaaleykum wa rahmatullah ñëpp euh, ñëpp nag ku ko wax bàyyiwoo kenn euh, di jaajëfal wala di nuyu di ziara Baye Serigne Abdourahim Seck xalif général lu Thiénaba ak njobootu maam Ahmadou Ndak gi jàkkaarloo ak ñun waaye du ñu fàtte ñaanal tamit Baye Cheikh Ahmed Tidiane euh, yal na yàlla yokk ko leer ci barke Sidina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ak képp ku mu fa fekk yal na yàlla dolli ko yërmande kon Thiénaba TV doxantu boobu la defoon fii ci kër monsieur le maire ci teraanga yoo xam ne rek chaque année dina koy def jëmale ko ci gàmmu Thiénaba ren nag mu a yokk loxoom euh, ndax macha allah euh, yokk la ñuy ñaan yàlla na gën a yokk euh, bu déwénee ba gën a raw lii sax ñu indi ren kon ndawal am na muy ay nag am na fi ceeb am na xam naa cekeen ba ma ngi may ree waaye dëwlin am na lépp am na macha allah saawaan baawaan comme ni ma koy waxee joxante rendez-vous incha allah yeneen i jataay Talla saar la ñu loon ci caméra bi ak bébé Baye Serigne Sarr ak Alpha Ibrahima Sarr ci technique bi Moussa Ndiabe Gueye ci waxukaay gi joxante dig daje yeneen i jataay jàmm ak xéewal ak